ay ca jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement naa leen comme ni ñu leen koy toppale nag ci làmb tey ñu dalal koo xam te ni ndaanaan la ñu war a waxtaanee moom ci li nga xam ne moom moo di làmb tey yaroo nag ci kippaaru Lac de Guiers di Mathieu la Mathieu ñoo ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. Makan maa lay fay ginnaaw ma sante yàlla julli si yéen bi di sant sumay waajur. salaamaaleykum. mën sant di sant géej waaye di yëpp. ci nu Mathieu Perala. waaw mel mais mais mais mais Mathia. kii mën naa bokk ci émission bi. waaw mën nga cee bokk nga jëm ci combat boo xam te ni combat bu. fulaal ma mën nga cee bokk dama nekk émission. tamit ma bokk ci émission bi. mën nga cee bokk ngi dépendre ci moom rek. maa ngi ci. da nga nekk ci combat bu doy war yow ak Mbadji Boy Kaïré combat bu bari coow lool ngeen di ñaari daam ngeen jëm ci le 19 avril ci combat boobu Mathia di waajee. waaw waajaay rek comme ni ma doon waajee rek waajaay ak samay mbokk ak samay am di jàmm comme ni ñu doon waajee. combat boobu rek ñaari daama la avril mais mais ñu waxtaan tamit yaa ngi ñuy. waaw dimbali ba bal ma ñaari ndaw ma la de. waaw ñun la ñu waaw ñu koy waaj daal comme ni ñu doon waajee rek. yee ñu ngi waaj bu baax a baax. moo tax nga jël Mbagnick doon Boy Kaïré. waaw parce que dafa nekk champion moo dama jël ko. yee dafa def fi ay résultats am def ay preuve ma def samay preuve la mu boole ñu. ñu war a bëre. mais nga jël doomi mbër tey combat bi ak combat bi ni mu commencé am en jeu muy muy grand combat. doomu mbër jàmbaar ko gën. ah yow jàmbaar nga. waaw doomu mbër dafa gën yow yow nga dara ci ma yow ma keere yow. mën nga ci moom dara. magam sax mën naa ci moom dara. kan ci. mañam magam jënd. ah booy déedéet fi nga toog a nooy rek fi nga a nooy booy kooku mënoo ci moom dara. waaw xanaa su ma génnee si mañi kon si moom laa jëm. waaw baal dugg naa fa si albarka keer. waaw ma albarka ñëw ci mañi keer. waaw xanaa su ma fa jógee si jën keer laa jëm. bëri ba ba tamit li ma gën a ma gis la fan yii yëpp ngay génn di sensibiliser jeunesse bi ànd ak jeunesse bi jeunesse bi nga àndal nga ne. ah parce que àdduna jeunesse mooy lépp. mais mais mais ñëw ma si relation la dëgër un. ak booy Kayre. waaw loolu dinañ. ñëw ma si relation boobu lañ bëgg a terminer. waaw loolu suñuy ñaari papa lañ. waaw ba la moo tax waaw loolu suñu ñaari papa lañu écrit waalo écrit boobu daa ñëw ba dafa nekk xale boo xamante ne moom jeune talent la ma nekk jeune talent <laughs> mu nekk mu nekk booram di bay waaram ma nekk sama boor di bay waaram mhm. ba làmb xam ne tey maanaam moom mhm. làmb la mhm. kon tey affaire u kóllëre yu yàgg yooyu noonu ay boy keere daw sa yaram guerre 1 non daw na suñu yaram sax mais làmb la dañuy may dañuy liggéey nga na xaree daan. wër na ndomb taxul nit daan la. daan la waaw ay toujours péré taxaw ñoom. waaw non yooyu moom ay kii la rek moom. mën nañu xalaat mbaam mi tey mbaam mi nga dugaloon arène nationale mu ñëwaat sa combat. ah day ndee mbaam xaaw war ko. loolu lañ naan <laughs> ngonk ngonk. ngonk mbaamum léegi def ci code foofu. ma def ci code. mais mais ñëwal ñu ci jeunesse bi temps yi dañ la gis nga génn fës ngay politique xaw ma nu mu demee. non man du ma politique man du ma man du ma politique daw ma si benn manifestation daw fenn. mais dama lay xamal ne tey ñun lu ñu doon jeunesse baa ñu ko def. tey man su ma doxee ñu ne Mathia Préra ngi ne. wala may dox tey di dawal sama histoire ay nit di yuuxu. naan Mathia ngi ne jeunesse baa tax. parce que jeunesse bi ñoo ñu dooleel. suñuy bëri jeunesse baa ñuy topp. fuñ fuñ jëm jeunesse bi moo ñu dooleel kon tey bu jeunesse bi jógee di ñaxtu leen na. kon ñun bu ñu mënul ànd ak jeunesse bi. nit ñi rek. dëgg la kon yow bokkoo ci nervi yi. bokkoo ci nervi yi joxuñu la xaalis ak yooyu. ñuy am na mbër yi comme lamb dox. mbër yi sax champion nervi. yi nervi ah. fii bëri nañu punkal ñoo xamante ne duñu mbër. man am na ñi ma ëpp ñi nga xam ne duñu mbër. duñu dara. mais ëpp la yi. jaanu saamaar soo fa demee di nga fa fekk ay plus de trente jeunes yoo xamante ne dañuy entraîné. punkal am doole te duñu mbër. dëgg mais tamit dañuy gis gars yi nervi ñu ne mbër yi mbër dafa wax dunku daal. Lac de Guiers 2 seen ñaar cofeelante bi ngeen am bëggante bi ndax ñu gis la ci wet bi seen relation. waaw Lac de relation ak moom. ëpp na di wax sax parce que sama yaay moo jël sama loxo dénk ma ko. ndeysaan kon loolu. kon la nga xam ne tey. Mhm. tey man kër Lac de Guiers 2 su ma fa duggee néegu papam Lac de Guiers 2 bi takk ngeem day taxaw ni ma taxaw ni ndeysaan. xam nga su may takk ngeem tant que ñëwul takkal ma ngeem du ma takk ngeem. waaw parce que comme dafa mel ni tey sama deret mooy bëre tey ah. sama deret maanaam sama frère tey man moom bu gaañoo man dama war a xureeku man su deewee man dama war a xëm parce que man noonu lay àndeex nit quoi dama lay jàpp si sama jikko ni may doxee waaw la dëgg dama ko jàpp si ay qualité am si ay jikkoom te tey moom bu naree gaañu man man am naa ngoru taxaw gaañu ba pare moom mu soog a gaañu. am naa ngor kóllëre gi ñaakoo ji ci réew mi. boo yow ko kóllëre nga. mu jëm ci combat bu doy waar. jëm ci combat bu doy waar. fekk ma fekk ma mm. yaa ma yëf ci ay pom borom salañ salañ bi ko xam te ni public am day yëngu te ngeen jël la ci nii mbaru coow la ay waay la na gër na coow di mais loolu fokk ñu ñun loolu fokk ñu dépassé wuñu parce que bu doon Siteu daa dugg géejawaay ub géejawaay sax moom ñoo fëkk mais dugg géejawaay mu dugg géejawaay yëpp dafa ñëw xaar ah kon bu duggaatee suñu dara fëkkuñu ko contre Gouye Gui dafa xaar déedéet contre Sa Thiès dafa xaar kon bu ñëwee la dégeer waxuma la xaar sax day xaaraan ak Siteu jamono ji ma gis. mais daa mel dara de. dara si lan lan mooy dara Siteu daa mën a nekk ci dara ba romb Lac de Guiers. Papa Sow a nekk ci dara mais est-ce que du risque ci Lac de Guiers tey. ban risque ay risque la kay du risque. parce que lan bu ko rappelé gauche am boobu. amul ah, noppil. bi ma sonnee da ngay wuti défense ci dëkk bëri fu ne ngay dem. bi ma sonnee xam ne saa kees daf ko daan. salaamaaleykum. na ngeen waaw ah, dañuy émission de. Ah, man de xàmmewu ma supp ak soos xaw lu xew ci dëkk bi de. di nga xam lu xew man ko xaw ma lu xew de de kon yéen émission bi de de moom ngeen di def nii muy jëm xaaral kon ma wut fu ma eh. ah, damaa foogoon ne émission bi. kii yee Mathia Pereira. Oh. yow ah wax man yéen. ma Mathia gi. kii da xam nga. ba ma ñëwee Ndakaaru ba tey moom la siiwur di. moom la moom siiwur di. moom la ñuy siiwur ku dul Mathia Pereira mi. moom la ñuy suivre defe naa bu bu bu bu ma juumu sax moom mii présage bu day faral di fecci waalo waalo bëgg na ko lool man ba présage da koy fecci ma ma ma bëgg ko cee woyal naan eh ku sa mbër baax mooy ku sa mbër baax eh, ay boo wax kee ma suul waay ay boo wax kee ma suul waay ay ko dagg te nag ah ma lu ma bëgg. Ah. ba ngoon di wuti wayaan ba muy sonn la sa ah. nekk nii soxna si waaw la jógee naa neex dëkk daa xam ci saat daa xam ci saat mais mais tey nga ne du risque ci Lac de Guiers non du benn risque ci de Guiers ndax ku saa kees daan guy gi daan ko Lac de Guiers léegi nan lay nekkee risque ci Lac de Guiers si am na gauche de waaw mais bu ko xaañee la dageer. goosu Siteu bu dalee la dageer wokkatu si kanam la rek. kanam buy xasan kanam buy xasan. Siteu mu jug ne nii ñool bi jug. saa yeeku ma ne goosu Siteu sànni gauche sànni droite. goosu Siteu bu dalee la dageer. Baye Mballa bu mu tax a yokk tamit di reporté. kanam buy xasan la ñu war koo woo <laughs> kenn du ba bis ma. mais mais mais ba bis ma mais mais foofu dina doy waar de bis boobu. non dina doy waar ci yéen mais ñun moom doyul waar ci ñun quoi. oyofal ngeen ko de. mais dafa war a oyof. daa mel ni jot waar lay ngemboo. jot waar lay ngemboo. dañ koy ziri rek ñun meew juróom la ñuy jël jël si woon ndox def suukar juróom bàyyi ndox bi laser kese waxtaanee ko séeréer ñu naan ojo ko koy mais mais sa ma ak Mbagnick Mbagnick mën nañu xaar tamit xeex bu metti waaw moom lu ne ngi fa moom njar déem njar déem la moom dret ji bari baa xam nga nag Mbagnick du bëre combat bu gaaw de xam nga loolu waaw man nag day de man nag yow it da ngay cons mais sa combat toujours peut être consoo ko waaw mais du yëpp la ñuy cons sa combat ak kay rek nga cons man li ma jaaxal makan dam lu ma jaaxal ci moom waaw saa boo jàppee day yëgu suuf mu ma waaw booy mën a bëre yëpp la daan la ay saba ñëpp la jeexal mhm. moom daal may walax njaan ci géej ñu ko neex lay wëlbati ko mais secret waalo ndax bari na ay ay révélation ay xale yoo xam te ni yaakaar naa ku ci nekk. ñaa bu ndaw nga fa yaakaaru gi la ay ay Papa Boy Djiné ay Baye Tine mu bari foofu ay ay bari ay bari na waalo seen secret lan la. waaw secret bi mooy doon benn rek bokk ndey bokk bàyyi. méngoo parce que ñun loolu la ñu xam xam nga suñu mag suñu lépp muy Alioune Seye 2 si loolu la ñu yar xam kon ñun si loolu rek la war a mel daal ñun lu ñu mel mooy kenn bu amee combat ñun ñëpp ñu gën la koo bëgg jàppale la bay suñu borom may la ndam après ku nekk nekkaat ci li nga nekk loolu xam te si loolu la ñuy dox waaw doxuñu daal si leneen si loolu rek la ñuy dox jërëjëf ñu ngi rafetlu sa ñëw wax nga waxi làmb mais tey CNG bi bu ñu doon changé ci làmb tey la nga yaakaar ne mën nañ ko changé waaw CNG bi moom maa dégg nit ñi di wax mais moom wax fa yàlla mën CNG bi amaguma lu ma leen di condamné. ah booy lenn rek laa leen di condamné lenn rek. waaw muy lan muy vaar. ah vaar nga bëgg ñoom mbër tamit nga pare ca làmb. Uh-huh. nekk ci réew mi dox ci àll bi dem fu ne xam nga plus de trois mois. nekk ci réew mi di dox. ñëw benn fesin bu ndaw. arbitre yàq ko sa combat. Uh-huh. dafa métti ci xol. man def nañ ma ko. maak albarka Kéré. combat bu ba ma bëree ba ah. bi yëpp a xam ne ma caa daan. arbitre bi dem yëkkati loxoom. mais après recours lañ ma joxaatee sama ndam. kontaan na merci. te am na loo xamante ne rafetul daal waaw. Ah. Ah. te jege ko baax. tey ko kañ